jàngat yi nga xam ne ni jot nañ koo def ak partenaires yi wane ay résultat yu am solo jëm ci jafe-jafe yi handicapé yi di dund ngir seen inclusion sociale loole nag dina tax ñu gën a góorgóorlu taxaw leen ngir lépp loo xamante ne ni ñoo ngi ciy dox ñu mun koo am. fii ci Sénégal nag suñu xel xaw na dal suñu xoolee taxaw bi ñu leen di taxawu ngir ñu gën leen a bàyyi xel ci société bi loolu nag mën nañ cee lim yu bari ak partenaires yi nga xamante ni ànd nañ ci ak tamit ministère bi yor wàllum euh, wérgu yaram partenaires yi nag ñoom xàddu wu ñu benn yoon lépp liñ ci bëgg mooy ñu fexe ba taxaw leen waaye laago yi ngir ñu mën a bokk ci société bi di liggéey ni ñëpp. de déficience